organiser bis bu toll nii ñu tuddee ko wane sa talent woo jeune talent yi fi nekk ak autorités yi nga xam ne ñu ngi ci département de Pikine pour ñu ñëw seetaan ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci banlieue bi am talent war non wane sa talent nag bi mooy première édition non objectif yi moom bari parce que téyeer bu ñu nee téyeer Sénégal dafa war a am taxawaay d'abord parce que tey bëri na fi ay kilifa yoo xam ne ku ci génn suñu ñaw ngay sol te dama gis ni euh, ku ci mel ne état du Sénégal dafa dañoo dese jàppale artisanat yi ñun liggéeykat yi taxawaay bi ñu war a am ci ñun ko lolu mo moo waral organisé organiser lii euh, sensibiliser association terri pour waxtaan ak ñom am ben ben ben benn euh, affaire buñu taxawal. amna yu dàq lii am lu dàq lii booy ñu ngi ñew fess lepp lu tubab di ñew rek sénégalais ñu ngi koy ñëw rawatina doomu banlieusard di defar ay dal aussi di ci liggéey lu mucc ayib. autorité gox bi euh, ñi nga xam ño nek parti au pouvoir. ñoom lañ am pour waxal parce que tey ñoom ñoo fi représenté état du Sénégal liñ leen di wax mooy nañu ubbi frontières yi yombalal dem beeg dikki bi ñu mën a dem bitim réew yóbbu œuvre Sénégal pour mën koo jaay nag parce que tamit euh, kuy xalam di ca jaay barke ba yaay borom li ñu am dañ koo war a yóbbu ci bitim réew pour wane ko parce que lu ma xam moo ma lu ma mën moo ma lu ma am moo ma moo waral ma koy sargal bu ma demee bay lekk xaalis yu ñëw mën cee sañse moom la su ma demee bay nit di gaare seen karkat di ma ñawloo moom la looloo waral ma di ko sargal góorgóorlu d'abord ñu gëm seen bopp aussi te xam li ñu yor lan la ndax Sénégal àdduna sax laay wax mën naa ni ñaw ak lekk moo gën a dox mais fam am yenn yoo xam ne gëmuñu seen bopp ñu nag banlieue lañ am du ma noppee di ko wax nañu gëm seen bopp affaire bi ñu defar ko ba mu gën a rafet sang ko ba mu gën a set ndax métier noble la